moo tax sama nuyoo tey waa Daaru Minam gépp laa ko boole waa Daaru Minam gépp laa ko boole cant gi it cant gi it ñoom ñëpp laa ko boole ñoom ñëpp laa ko boole ñi nga àndal nag ñi nga àndal nag te ñëpp te nga àndal sax te ñëpp nga àndal sax ndax boo nekkee ci yoon wa ndax boo nekkee ci yoon wa ña nga àndal ànd ak yow ña nga àndal ànd yow ñi bëgg a dem te mënuñoo dem. a dem te mënuñoo a nekk. danañ roy ñee danañ a roy nekk. danañ la ñee. danañ a nga nekk. kon ñëpp ngay nekkal. kon ñëpp ngay nekkal. bi di ubbi Masaalikul Jinaan. bi sëñ di ubbi Masaalikul Jinaan. daf maa wax ne. daf maa wax ne. réew mi yëngatu na. réew mi yëngatu na. lislaam yëngatu. lislaam yëngatu. Iblis taxaw di bàkku. Iblis taxaw di bakku nanu seet nag. nanu seet nag. nanu xeex moom. nanu xeex moom. ndax coowal Iblis li. ndax coowal Iblis li. ak yàq gi. ak yàq gi. génnagul Ndakaaru. génnagul Ndakaaru. kon dama bëgg. kon dama bëgg. ubbit ak jumaa ji ubbit jumaa ji ñu rey ci seytaane ci foofa ñu rey ñu rey seytaane ci foofa yëkkati lislaam foofa yëkkati lislaam foofa daa dina su ma ko sañoon daa dina su ma ko sañoon dama koy tuddee ayu bisu rakkaaju dama koy tuddee ayu bisu rakkaaju maanaam murid yëpp dof maanaam murid yëpp dof nee na loolu ko defee nee na loolu buñ ko defee mooy génne Sénégal ci lëndëm mooy génne senegal ci lëndëm waaye ñee dañ koy tudde leneen. waaye ñee dañ koy tudde leneen. ba lor am ca ñoom. ba loola am ca ñoom. ba lor am ca ñoom. ba lor am ca ñoom. lor googu lay bañal ñooña. lor googu lay bañal ñooña. moo tax mu ne ma nag. moo tax mu ne ma nag. kon rakkaaju. kon rakkaaju. na yem ci maag yow. na yam ci maag yow. te nu yéene ko ñëpp. te nu yéene ko ñëpp. yàlla dogal na. yàlla dogal na. bi ma waxee loolu. bi ma waxee loolu. am na laxasaay boo xam ne. am naa laxasaay goo xam ne. bi ma ko sëñ Moustapha di jox. bi ma ko sëñ Moustapha di jox. danoo nekk poroxaan. danoo nekk poroxaan. sëñ Saliou yónni fa ay jëwriñam. sëñ Saliou yónni fa ay jëwriñam. jox ko aw sas te xel koom. jox aw sas te koom. mu ne jëwriñ mu ne jëwriñ yi nee na sëñ Saaliw nee na nee nañ su màggal gi àggee su màggal gi àggee Moussa ak dongay tarbiya yi Moustapha ak dongay tar Moussa Moussa ak dongay tarbiya yi daañu fi daañu fi jiitu ji daañu fa jiitu ji xàll yoon wi xàll yoon wi may danaa waaj man it waaj fekk leen fa ñu liggéey sas wi fekk leen fa ñu liggéey sas wi daal may digal ne ma daal di may digal ne ma naa dajale donga yëpp naa dajale donga yëpp bu Touba. ànd ak ñoom dem. ànd ak ñoom jóg. bi may jóg. mu ne ma toogal. mu ne ma toogal. ab leetar. daal di bind ab leetar. jox ko Moustapha Sène. ne ma jox ko Moustapha Sène. da nga jaari Touba. da jox Moustapha Sène leetar bii. jox Moustapha Sène leetar bii. am na mant bu nekk sama gaal. am na mant bu nekk sama gaal. sëñ bu ma ko joxoon. sëñ Abdou Lahat moo ma ko joxoon. ne ma. ne ma. Serigne Touba ak Cheikh Ibra. Serigne Touba ak Cheikh Ibra. buñ fi bokkoon di ne. buñ fi bokkoon di ne. di doxe nii ñuy doxe maak yow. di doxe nii ñuy doxe maag yow. at mu jot. at mu jot. sëñ Touba dana ko yokkal daraja. sëñ Touba dana ko yokkal daraja. te dana ko firndeel. te dana ko firndeel. kon nag mantu bii. kon nag mantu bii. mantu Cheikh Ibra la tudd. kon nag mantu bii mantu Cheikh Ibra la tudd. moom laa jox tey. moom laa lay jox tey. loolu la sëñ loolu la sëñ Abdou Lahad wax sëñ Moustapha. sëñ Moustapha ne ma nag. sëñ Moustapha ne ma nag. mant boobee. mant boobu. yow it naka sax. yow naka sax. moo tax mujj agsi fii. moo tax mu mujj agsi fii. jël ko jël ko. bi ma sëñ Muntaxa waxee loolu yi nag. bi ma sëñ Muntaxa waxee lool yi nag. moo tax ma laxasaayu mant boobu yi. moo tax ma laxasaayu mant boobu yi. ne sëñ Muntaxa. ne sëñ Muntaxa. damaa bëgg ñu sotoo mbir mi. damaa bëgg sotoo mbir mi. fépp fu ay gët nekk. fépp fu ay gët nekk. maanaam muy télévision yi. muy télévision yi. muy internet yi. muy internet yi. ku ci gis laxasaay gi. ku ci gis laxasaay gi. boo dee nitub lislaam. boo dee nitub lislaam. te sa diine yoxos. te sa diine yoxos. te sa diine yoxos. yàlla ko. yàlla dangal boo dee murit. boo dee murit. boo dee dee murit. sëñ Tuubaa dimbali sëñ Tuubaa dimbali la. téyel taalibe. téyel sa taalibe. te nangul la ko. te nangul la ko. loolu laa fas. loolu laa ci fas. sëñ Muntaxa ne ma nangul nañ la ko. sëñ Muntaxa ne ma nangul nañ la ko. ba moo tax. ba moo tax. noonu ngeen ko gisee. noonu ngeen ko gisee. noonu la demee. noonu la demee. yow Basiiru loo nag. yow Basiiru loo nag. kenn ku kenn ku ne. boo wàccul mbooram ka aw. ka nga boo wàccul mbooleem. mbo mbooram ka nga topp. boo wàccul mbooram ka nga topp. mbooram ka nga topp. mboolam ka nga topp. mboor mboor mboor mooy. boo wàccul mbooram ka mu topp. waaw kay lu mu am. lu mu am. yaa ngi yaa ngi njëkk a seddu. yaa ngi njëkk a seddu. yaa cay njëkk moo tax nag ren jii. moo tax ren jii. tàmbalib liggéey la. tàmbalib liggéey la. ci sëñ Muntaxa. ci sëñ Muntaxa. sa sa liggéey bu njëkk. liggéey bu njëkk. falaa ko yóbbu. falaa ko yóbbu. muy muy bërki démb. muy bërki démb. dama sëñ Moussa joxoon nag. la la ma sëñ Moussa joxoon nag. la ma sëñ joxoon nag. muy laxasaay ga. muy laxasaay ga. voilà demal demal demal demal demal. téléphone téléphone. d'accord dina dina ko. tooy tooy tooy. duñu leen duñu leen leen ku bëgg nga jëf ko ku bëgg rek nga mbay defu ko a may ko ka yaa ko rek